population Sadio yëpp ñoo dajee fii pour di naxarlu ak di mettitlu mais tamit di yëglu ci mettit bi nga xam ne yàgg nañ di ko dund ay at yi at muy bëgg tey jii Sadio am li nga xam ne mooy classe de seconde. parce que Sadio tey jii bu classe de seconde doon am ci département Mbacké ñu war ko yóbbu benn commune kese commune Sadio la war a doon. parce que Sadio mooy troisième grande commune bu euh, bu département bi derrière Touba et Mbacké. donc lépp lu Mbàkke di am Touba ko am Sadio moo ci war a topp ah kon kon Sadio tey warul jéggaani lycée pour wax ne population Sadio parents d'élèves yi ak képp koo xam ne yaa ngi rek ànd nga ci dogal bii nga xam ne collective bi jël na ko mooy lan mooy def manifestation tey mais tamit taxaw ne cours dootu am inscription du am tant que classe de seconde créé luñ ko ci CM bii bii amoon nañ soixante quinze pour cent jëm quatre vingt de taux de réussite ci ci examen BFEM yi. qui veut dire que am eh, yoo xam ne nii dañu war a def classe de seconde dañu war génn ren te soixante dix classes de seconde soixante dix classes wax dëgg fa yàlla war na mën a servir deux classes de seconde S et L. suñu xale yi sonn nañ ci dem jàngaani ay gasaan tey fu ñu di leen fa yóbbu vraiment même ñu fekk sax dañuy sonn commune bi yëpp ñu ngi topp naa sama xale yoo xam ne jaar nañ ci am naa sama doom boo xam ne mu ngi jàngee tey waaw sama taaw bu jigéen mag yi ci la doon jàngee ba mu demee ba xam ne amul lycée fii moo tax mu bàyyi am njàngam léegi rakkam moom moo fi nekk mu ngi jàngee tayif waaw moom boobu foofu la ne coono bu ne la ñu jànkante ndax ñàkk lycée suñu amoon lycée yenn coono yi duñ ko daj ñun élèves yi nga xam ne ñoo jàngee ci commune bu Sadio duñ jàngi xalaatuñ ko duñ inscrire tamit te gisuñu ñaari classe de seconde lañ leen di laaj bu école tëjee ñu àggale ko première ak terminal bi te ñaari classe de seconde lu am ci CM bi la ndax CM bi am na cinq classes yoo xam ne nii nii kenn jàngeegu ci. ren nag inscription yi moom xalaatuñ ko dañ koy boycotté carrément njàng mi tamit dañ koy boycotté ñun demuñu école ñu ngi am vacance ba léegi mes camarades d'élèves je parle avec vous il faut se réveiller mbéjum kanam borom ma koy fajal boppam.